conseil wu mu laaj ko parce que dafa def ay déclaration yu forte yu dëgër yu xam ne ñi ngi ci internet bi institution yi mu yor ñoom ñëpp ñu def ci déclaration ba ci ki nga xam ne moo taxawaloon constitution bi ci jamono jooju muy Ismaïla Madior Fall moom si boppam wax na loolu ne lii mënul nekk donc kon moom bu demee ba mu ñëw donc kàddu yooyu dafay nekk loo xam ne reflet lay nekkaat ci moom bal la booy sànni muy ñëwaat ci woon dana la déstabiliser moralement te dana la yàqal loo xam ne war nga ko am donc nit daal man li may fi may daanele foofu Ousseynou mooy nit da ngay préparer sa ndono Macky mënul nekk di tergiverser nii di di nga xam ne kenn xamul ëllëg kenn xamul ëllëg ku koy remplacer nit da waajal nit nga former ko mu nekk sa dauphin nga joxoñ ko nit ñi say sa say mbooloo mi nga yor ak yow li nga fi liggéey ngay jàppale ko ko woo say nit woo sa coalition ñu ànd jàppale kooku pour mu moom mu mën a dem élection mën a gañe mën a surveiller say arrière ëllëg mais boo ko deful mbir yi dana la bett parce que nii ñuy fonctionner nii ku la ne aussi bëgguñu troisième mandat doo ko weddi waaye bu buñ ko defee conséquences yi ma la wax mën na leen cee fekk. mais man conseil bu ku ma laaj ko parce que dafa def ay déclaration yu fort yu dëgër yu xam ne ñi ngi ci internet bi. institution yi mu yor ñun ñoom ñëpp ñu def ci déclaration ba ci ki nga xam ne moo taxawaloon constitution bi ci jamono jooju muy Ismaïla Madior Fall moom si boppam wax na loolu ne lii mënul nekk donc kon mun bu demee ba mu ñëw donc kàddu yooyu dafay nekk loo xam ne reflet lay nekkaat ci moom bal la booy sànni muy ñëwaat ci yow dana la déstabiliser moralement te dana la yàqal loo xam ne war ko am donc nit daal man li may fi may daanele foofu Ousseynou mooy nit da ngay préparer sa ndono Macky mënul nekk di tergiverser nii di di di nga xam ne kenn xamul ëllëg kenn xamul ëllëg ku koy remplacer nit da waajal nit nga former ko mu nekk sa dauphin nga joxoñ ko nit ñi say sa say mbooloo mi nga yor ak yow li fi liggéey nga jàppale ko ko woo say nit woo sa coalition ñu ànd jàppale kooku pour mu moom mu mën a dem élection mën a gagner mën a surveiller say arrière ëllëg mais boo ko deful mbir yi dana la bett parce que nii ñuy fonctionner nii ku la ne aussi bëgguñu troisième mandat doo ko weddi waaye nag ñu ko defee conséquences yi ma la wax mën na leen cee fekk.